إليك وعدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولي جميع المسلمين يا بصير waaw maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant Abdou Aziz Ndiaye bi moo fi yabaloon pour mu indi leen diwlin bi cent carton la ak euh, ay masque quoi maa ngi faax ngeen defal koy ñaan di weet ngeen def si ñaan bu baax a baax moom it ngeen ñaanal ko fan wu gudd ak wér ak fekkeek tal. ci turu Touba ca kanam ci turu njiitul Touba ca kanam di sëñ Habib mu sëñ sëñ Fallilou dañuy ñëw recevoir euh, teraanga ji wala xéewal yi nga xam ne ku ñuy wax Abdou Aziz Ndiaye yónnee na ko fi euh, ñu tàmbulee na kon ci di ko sant di ko gërëm ndax taxawaayam ak yitteem ci liggéey bi gis nañ ne biñ tàmbulee ba tey jàpp na ci njëkkoon na cee jàpp yëkkati enveloppe joxe ko. Euh, yamut ci mu yëkkatiwaat euh, mille deux cent litres yu diwlin boole ko ay masque indi ko ci liggéey bi loolu rafetlu nañ ko lool ndax taxawaay la boo xam ne euh, bu ci baree ay morom rek lépp dana jag kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ak yokkute barki sëñ Touba di ko ñaanal itam ay kilifaam ndax lii lu rafet la mënoon naa jàpp ne am na wet gu mu féete rek la muy jëf fa la koy jëme waaye xam gim xam ni lépp benn la te lislaam bi moom nu boole nun ñëpp ndax bu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa fii ci dëkk bi mu jógee ba Ndakaaru jël teraanga yu toll nii dugal ko ci liggéey bi duñ def lu dul sant ko gërëm ko ci turu kilifa yi te di ko ñaanal yokkute gu wér ci barkeb sëñ Tuubaa ya adul ya musil ya man anta mujiri a xuna ya muminun fa abadan kun muminan ya sal min kulli suin wa asabin wa dalal